Chers collaborateurs de Monsieur le Ministre, chers honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je réitérer mes félicitations suite à votre nomination, mais surtout pour le travail remarquable que vous avez à la tête de ce département depuis que son Excellence le Président Macky Sall Denkoloko. Monsieur le ministre, a aussi félicité le gouvernement du Sénégal par rapport à la gratuité de la césarienne, euh, gratuité aussi dialyse, mais aussi surtout la politique de la couverture maladie universelle bi nga xam beaucoup de Sénégalais. Merci aussi monsieur le ministre pour les centres d'hémodialyse yi nga dans certaines régions Tay Amnafa, na fa ba tax na ñooñu dootuñu déplacer kilomètres pour à Dakar pour des monsieur le ministre je nga que Mbour suis là, donc vais revenir à rek monsieur le ministre ma euh, doléance monsieur le ministre au Grand bourg compte tenu de la situation euh, géographique bi nga xamné Mbour nek nako tay xam nga né aéroport Blaise Diagne Mbour la nek tay monsieur le ministre autoroute bi à péage bi Mbour la nek légui tay ñu wax portu donc vu compte tenu monsieur le ministre de la situation géographique mais du poids économique aussi monsieur le ministre de Mbour monsieur le ministre compte tenu aussi du poids démographique de Mbour jàpp naa ne hôpitalu Mbour tey war nañ ko yóbbu mu nekk niveau 2 te fii ak ñaari at ñu yóbbu ko li nga xam ne moom moo nekk niveau 3 monsieur le ministre. monsieur le ministre accueil hôpital bi aussi bëggoon nañu nga gën ñu ci jàppale ñu gën ko renforcer. ko surtout ci li nga une mo jëm ci urgence monsieur le ministre personnel bi Nek Grand Bourg, doyul monsieur le ministre bëgg nañu aussi tay ñu moderniser ñu li nga la maternité de l'hôpital de Grand Bourg. monsieur le ministre di la nga continuer di les communes rurales du département de Mbour à savoir ngéñen Thiadiaye Malikunda, Fissel ngéxox Sindia Sandiara Somone Gapparu, bari nañu 16 lañu lu ci ëpp ay communes rurales dans le département mais jàpp avec vous mën nañu compter bu département de Mbour la encourager le ministre féliciter aussi suñu disponibilité pour vous accompagner nga réussir li nga son excellence le président Macky Sall de collaborateurs bon vent monsieur le ministre je vous remercie madame la présidente